your tàkk mën a gis crypto gates moo gates london liggéey rekk moo wóor tabaski incha allah léegi mu jot damay def direct fii ba tabaski képp ku ma jël xar ak ndokko suñ koy toggee non bugguma sax sama tur di jëmaat si yenn yi parce que su dee benn fan sax dinaa la ngor dinaa la teraanga waaye loo leen fa nekkee rek yàlla leen si yàlla jàppale waaye sama tur bëgguma foo dégg ndax nit dangay doon nit walla nga investir walla nga njëkk say mbokk wala nga jàppale ñi nga war a jàppale waaye suñ demee ba ni ñi ñu leen di raam loo di leen di bale loo di leen di fogale loo ana ngor ana personnalité ana yàlla nañu yàlla taxaw. ma laaj ñuy sànq rek ma tontu la quoi parce que comme que nee nga Griff ndax demoon Las Vegas dañu gis ngay ànd ak Mouhamed Diallo ndax ànd moom man kilifa te je suis te dafa am fu ma bëgg a jëm suma àdduna am lu ma bëgg. mais ñaar nga téléphone da war a bële. <laughs> Euh, bële la bële bële waaw da ngay for. tegal suuf waaw kon da ngay waaw mais da nga foral foral foral. damay for waaw foral foral foral lu bëri. <laughs> maa ngi koy for maa ngi koy for maa ngi koy for maa ngi koy for. force dafa xew. maa ngi koy for. mais labi di fi naan maanaam. waaw mais dañuy def nii kër gi ay saala ay saala. ay saala ay saala ay saala. ay saala mais ñaar waaw mais salaam. waaw mais salaam capital. mais mais mais mais